mais combat Modou Lo. Hmm. ànd Ama Baldé Ama Baldé danaa am dam bu sedd guy. Modou ak Ama Baldé. léegi mu nekk roi des arènes léegi Ama Baldé jëre roi des arènes. ah prince. prince euh, prince daa mel ni wax ji féete na boor parce que damaa gis ni wane nga ni mbëri yi ngay ñaanal dañuy am ndam ndax Ama Baldé ak Géejawaay benn bopp la. Hmm. Ama Baldé ak Balla Gaye benn bopp la. lu des bëri mu tuuti. Ama Baldé am na gaalaaji de. ama jàmbaar la de yàlla baax na combat bu neex la de.